waaw ligne 2 li na Fass waa Xaadim dañoo boole ñaari mbër tey Safi waree Thiès Paata Balde waree Kër Fallaye waree Fass Medina Gueule Tapée Sam su ma ko waxee yaayam a ngi dëkk 43 ca Sardin ba moom Paata Balde ay nijaayam a ngi Fass ak Medina waaye bu ko ñooñu gunge ñuy wax ni Kër Fallaye Paata Balde mii moo mbër ma Zil Balde bërekat ba waaye làmb ja saafi mii nag daa dëkk Medina Fall def Cees lu ne kenn xamul lu ko tàrree ci làmb mu ne naa ñëw Ndakaaru bëreem demeewul na mais naa jël paate waaye màggetum jinne Ahmadou day dee ay ngalaju paate mii gis naa ko ci mbapat moo xamante ne ni bu loon champion kenn du ko fa gis ñëw na parcelle ba tàyyi ci mbapat taxaw seetaan kenn bëggut a bëreeg moom boobaay ëmm seen ay xale lañu. ay Ousa Sow ñoo nekkoon carton yo Pathé Baldé yoroon drapeau Fallaye te mosu koo bàyyi gis naa ko nag mu indi fulaado ngemb bi cosaan la ci seen kër moomeel la ci seen xeet sañ-sañ la ci seen dëkk ndax dégg nga ñetti kàddu yi ma la wax. xam nga buñ nee pëlu fulaado xel day dem ci Guinée waaye ñoom biñ ñëwee dañoo wan ni Ndakaaru lañ dëkk sénégalais lañu wane seen bopp saafi mii nag moom bencum Medina Fall dañ ko yëpp. mu def tàkkusaan bu ne cees bëree fa combat bu bi mu ñëwee Ndakaaru nekkoon na écurie Ndakaaru waaye làmbam taxut woon mu siiw Thiès dañ ko gënoon a ràññee waaye saafi pour mu dellu si Ndakaaru combat bi dañuy xam ndax combat comédien la wala ndax Pathé day taxawaat ci biir géew bi te it war na fee mën a taxaw. waaw ci ñoom ñaar ni ma gisee Pathé ak ay ni mu déterminé. endurance mun na koo may ndam waaye bu ñu xoolee ci forme waru koo mën a teel am ndax ci diggante bi Bamba Pathé mii mënu fee liggéey lu changé forme am ndax lamb bi boo xoolee bi biñ ko jàppee date biñ koy jàpp ak bés bi daa jege te gëj naa entraîné kon endurance laa ko doon dénk waaye day bëre ak moo xam bàyyiwuloon entraîné xaw ma nag nu ñuy mujjee muy saafi waaye nag niñ ko waralee tey sotal ko gunge ko xel day dem ci père Fallaye xel day dem ci Jules de xel day dem ci Ama suy génn moo tax ñu ne mbokk ak ña jege sa kër sa kër baay ña nga bokk ak ndey ak baay tey gis naa jarbaatam sax ci stade bi Pokola kon naar baa fay xorom si waaye lamb la doo xamante ne nii a ah, Pathé jël na ko au de ndax ngemb bii du ku ne koy ngemboo Pokola du ngemboo lu nii sa kopp laa gis. lii am na am na borom li ngay dégg nii cere ndawal cere fallaay loolu bàyyi ma ko moom maqaam ak daraja nag gi leen di toppee seen bàyyi ko liggéey waaye dañuy téye mbooloo ma ñoom ñoo ko defal seen bopp loolu la ñuy wax doomu mbër ak waaye Pathé jël na ji au sérieux de dama xamul nag endurance ba ndax ma nga fa. waaye lamb ju garaaw dina am après Bébé Saloum ak Serigne Ndiaye bu Faas combat bu jar bàyyi xel la. Jackson soq li may wax rek xaadim Jackson bu indee rapide ba mu amoon ca Pape Ndoye ak ama euh, Ahmed Dem soq vivacité bi nga xamante ni ñàkkoon na ko contre France su ko ñàkkee ci combat bi mun na am lu ko bett. tey taay bi boo xoolee ak poids bi soo ko ëpp Jackson moo ko gën a long moo ko gën a large xaw ma nag ba xam gën na koo diis rapide ba ndax mu ngi ci soq dégg nga paate